non booy tamit yàgg ngeen quoi. booy yàgg ngeen de. ah bandi. booy man fii yàgg naa fi booy sànq bi maa ngi toog gaan. waaw mais xamal mais naka mu bàyyi non amul toogaay bàyyi jóg leen gaan. mais naka mu bàyyi dina dina de. non jëru ko jëru ko gaan. non man damaa soxla nga mais léegi nag baay waaw mais xamal rek ah. ah. naka tey. ku li bàyyi. nice waaw mais instant fee nooy na de. waay ñaari paa yi faa leen fekk gaan ñuy xeex baay man leen jóg leen sama oto bu wax naa ne li ngay xeex di dem. ah mooy pa pa bu ma fa wa woon. waaw pa dil boobu dil bi ah tamit waaw ah, bi gars naan ah. ay ay fukki junne ñaar man na nga xam lii loolu. Ah. waaye waaye pa boobu kay. léegi après ñaata ngeen mujjee kii. Eh, pa bi 30 la ñuy jox de. am 30 000 pa bi 30 000 la ñuy jox kay. te eh, booy booy ba ngeen di waay jël leen xaalis waay yéen la ñuy jox damaa yàqamte. 30 000 la ñuy jox waaw la du waxantu la mooy loolu. Eh yow mu ngeen yéen saa yéen booy lu tax leen yéen. non pas loolu Fall teel tantale. 30 la ñu ma laal ba ay booy booy paa bi ma booy da ngeen di déglu booy paa bi nee na ma yéen 60 000 lañ leen jox. di jëlee fi ay 30 000 bàyyi di xaaf benn 30 000 yi. paa bi 30 la ñu jox laalal 10 000 yi. man teewu ma lii yow bu dee ma ngaa ragal kii man ragaluma ko man du ma laal lii. soixante mille la paa bi joxe génne leen xaalis baa ñu door ko si digg bi gaa ñu door si jaas ku nekk jël li nga bi joxe yow gëmoo li la wax ni kon yow nii gëmoo la wax paa bi trente mille la a ah, ah, indi crime quoi ci affaire de xaalis xam nga bu ma toppoon sama bakkan mun naa la def lu bon parce que lii nii du yoon quoi man ku may kil ndeyam ju doogul gaan nga naan ma ay kil paa bi trente mille la man du ma ragal boo yaakaaree na ragal naa yaa nax sa bopp yow ñàkk nga fayda torop. bu la tollee noonu sa xoolal bu ñu àndatee ak yow ñun mën nañoo jóg sans yow. Habib man waxuma loolu de sama diggante kii kan ma ko xam ne man dama ëmb. moo kii sama tu tànk la. war na tu tànk la ba nga tam sama diggante kon kii xam na loolu. waaw mais léegi après ba ci lan. après ba ci lan kon xam nga yow nga def yow kii lan ma ko xam ne ma dama ëmb. Fall yow xoolal ah xuma loolu de ma xool tantaw yi. tantaw yi léegi génn li si des. lan moo des si lan. li des kii dañ ne ko 30 minutes encaissé. jógal. yow xaar rek fu ñuy mujj mën a yow xam naa ko booy taawun yëpp di wër di topp sama ginnaaw ngay ndogor ndogori nii boo amee si man lii doo sant yàlla yow bu ma la ëmbalee doo sant yàlla yow xaar naa la teg si agsi sax booy yi ñu rewantu